yetta ngi nii yoo xam ne day taxa naqari ab dund bi ci jëkk mooy ëmb coxor ci xol bu fekkee ne am na ku muy bañ doon ci sax kookaa tooñ waaye jàpp na tooñ gi rekk ëmb ko ci xolam du ko fàtte mukk mukk mbaa boog mu jekki-jekki soxore kenn rek loolu day tax du amati dund gu neex ñaareel bi mooy añaane kenn su fekkee ne ëmb na ci xolam ñàkk yéene kenn ci jaami yàlla yi la ko yàlla defal rekk loolu mën na ko yóbbee dund bu naqari ñetteel bi nag ñaaw jikko ñaaw jikko moom day yóbbee dund bu naqaree naqari ku rafet jikko day am dund gu neex a neex waaye nag ñaaw jikko moom day taxa naqari ak dund xikmatun li xikma la talaatatun yett min xasaraati yawmil qiyaamati bokk na ci rëccu yi wala perti bispenc penc maam lookun ku ñu moom yaddu xulu kook dana dugg aljannata ajjana duuna mawlaahu ci lu dul ab sangam wa rajulun ak waay jamaha ko dajale woon na maalan alal wa manaxate mu bañ fii ci moom aqallaahi aq yàlla wa anfaqahu te dundale ko warasatuhu way doonnam fii taaxatillaahi ci topp yàlla fan na jaww te ñu mucce bihi ca moom wa daxala te tàbbi saaxibuhu boroomam annaara sawara wa aalimun ak aji xam yen joo xog a mucc bi ci moom annaasu nit ña wa yasiru moom ci boppam illa naar jëm sawara yetta ngi ni yoo xam ne buñ taxawee bis penc da nga ko gis te xëy na mu bette tey lu tiis tiis lu méttee métti ba ci jëkk mooy bañ nekki àdduna kii nekkan dib sang kee dib jaam mu moom ko ñu taxaw bis nag ka doonoon sang ba yilifoon jaam ba di ko jëmale fu ko neex dem sawara jaam bañ moomoon nag dem àjjana loolu day lu doy waar la waaye luy ama am la ñaareel bi mooy biñ nekkee ci àdduna nit taxaw ci wut alal mu jaral ko lu ne waaye nag bëgg alal ga àgg ci du ca seet lu lew ak lu lewut ba mu wutee nag ba mu baree bari bu bari mu daldi faatu ña ko war a doon donn ko ña ko war a doon nag taxaw temm ci def ci lu baax ngir yàlla bañ taxawee bis penc ñoom ña doon alal ja nga xam ne sol ni woon ci wut ga waaye nag defoon nañ ko ci lu yàlla gërëm rek daldi dem àjjana ngir alal joojee ñu defoon ci yoonu yàlla te ku wutoon alal ja nag te seetu ci woon lu yàlla bëgg lu yàlla bañ moom ñu topp ko ba loolu tax ñu yóbbu ko sawara loolu day lu doy waar la ñetteel ba nag mooy boroom xam-xam boo xam ne daana yee nit ñi ci luy tax a mucc waaye nag dawoo ko jëfe ñam daa yee ñoom taxawoon temm ci jëfe la mu daa wax ñu taxaw bis penc nag ñamu daa yee ñoom mucc dem àjjana moom nag ñàkk gaa jëfe la mu xamoon tax koo dem sawara xikmatun lii beneen xikam la aljoow xiif yuurisu day joxe talaasata asiyaa yetti yëf safa al fuaadi selluk xol wa mawtal hawa ak deewuk bànneex wala xilma ak xam-xam ar raqiqa buy aji sew xiif day day may yet dana maye xol bu set wecc dana maye it deexuk bànneex maanaam bëgg lu aay lu koy lor mooy bànneex loolu nag taqu xiif bu digg doomu mën na koo rey ba du bëggati lu koy lor ñetteel bi nag mooy xiif dee tax nga am xam-xam bu xereñ a xereñ bu sew a sew boo xam ne wurdoon xiif bi boo xamee it xam nga du mën a leere noonu xam nga du mën a selle noona xikmatun lii xikma la ba tey wa waxoon na yaxya bnu mahaad ne liyakun na nekk xaddul mumini cërub aj gëm ja min ko ci yow salaasa xisaalin di yetti jikko maanaam di yetti mbir takun kon nga nekk na minal muxsiniina bokk ci way rafetal ña muy way baax ñi def lu baax in lam tanfaxu ndéem mënuwu koo jëriñ falaa tadurrahu kon bu ko lor wa in lam tasurrahu ndéem bégluwoo ko fala taxummahu kon bul ko jàqloo wa in lam tamdaxu ndéem tëggoo ko fala tadummahu kon bul ko ŋàññ yaxya ibnu mahaad nee na sa mbokkum jullit fexeel ba doxaleeg moom yett yi sa mbokkum jullit boo doxaleeg moom yett yi daal bokk ci ñu baax ñi ba ci jëkk mooy su fekkee ne mënoo ko jariñ xel ba bul ko lor ñaaral ba mooy su fekkee mënoo koo bégloo bul ko naqaral ñetteel ba mooy bu fekkee mënoo koo tagg bul ko ŋàññ xikmatun lii xikma la qaala abu bakrin radiallahu anhu talaasatun yett yi man kun na ku ñu nekk fii ci moom kun na ñu nekk alayhi di musibaam al baxyu moo di bew wal makru ak fexeel keneen fexe mu aay wa naksu ak firi wulëre li xawlihi taala innama baxyukum naka seenu bow daal xalaa am fusikum musiba la ci seen bopp rekk ak wa xawlihi taala wala yaxiiqu du aju almakru pexe ma as sa yiw may aji bon illaa bi ahlihi ndara ci woroomam wa qawlihi ak waxam ci moom yàlla fa man nakasa ku firi wëlëre fa innama yankusu naka dana firi wëlëre xalaa nafsihi ci kaw boppam rek Abubakar yàlla na ko yàlla doole gërëm nee na woon yett yii ku ko def itam la cay ngaañ ak musiba yaa ko yëg ndax suñ boroom moo ko wax ba ci jëkk mooy bew bay tooñ doomi aadama yi su boroom nee na su ngeen bewee seen bopp yéen ko yëg ndax dunu àdduna lu gàtt la ngeen ñëw fi man ma fay leen kenn ku ne la mu defoon kon nag ku bewoon dund gi yàggut mu daldi faatu musibam mbewte ga dal ca kawam mu daldi ñàkk àllaaxira ma nga xam ne amut fu muy yem ñaaral ba nee na mooy di fexeel keneen fexe mu aay suñu boroom nee na kuy fexe fexe mu aay ci yow lay dellusi dañuy wax naa yéene ab néeg la boroom a cay fanaan ñetteel ba nag mooy fecc wala ré suñu boroom nee ku fecc wala ré sa bopp la cay musiba ci yow lay dellusi xikmatun li xikam la waxi la waxees na ne xayrul asiyaa ngën ji yëf ya lil mar i ñeel yett la xaqlun am xel yaa ayichu moom dana dunde bi ci moom wa maalun ak alal yejjitani bu dul dana moytoo bi ci moom xan su aalin naasi walis laaj nit ñi wa ixwaanun ak ay mbokk yurshidunahu ñooñ danañu ko jubal ila sawaabi jëm ca jub ga li gën ci nit daal mooy yett yi yàlla may ko xel moo xam ne fu mu nekk man faa nekk ndax nit dana ame xel moo xam ne fu mu nekk rek man faa nekk te rafetu xel ma moo ko ko may ñaareel bi mooy yàlla may ko wërsëg woo xam ne dana jàpp ba du dem di yalwaan nit ñi mbaa mu leen di leb di toroxal boppam ñetteel ba mooy yàlla may ko ay mbokk yoo xam ne ñoo koy xelal ba bu naree jàdd ñu wàññi ko xikmatun li beneen xikma la wa an rasulillahi jële ci yonante yàlla ba sallallahu alayhi wa sallam arbaxatun yent min sunanil mursalina bokk na ci sunna yi ñu yàlla yónni woon alxitaanu làkku te mooy xaraf wat taxatturu ak gëtu muy xeeñoo lat ko lañ mooy xeeñoo xet gu neex wa ak takk soxna wa siwaaku ak soccoo addis ba nee na yent yi day ñu baax ñi yàlla yónni woon ci àdduna seen mbir la woon ku yebu roy leen ja ba ci jëkk mooy li ñuy wax xaraf bu dee góor mu xaraf ñaareel ba mooy fexe bay xeeñ xet gu neex te bañ a xeeñ xet gu naqari ñetteel ba mooy takk soxna ñeenteel ba mooy soccu xikmatun lii xikma la arbaxatun yent yi laa na duñu regg min arbaxatin ci yent aynun bët du regg min an nadari ci xool wa ardun suuf du regg maanaam du doyal min al matari ci taw wa unsa jigéen tam du doyal min al zakari ci sowukaayu guur muy zakara wa aalimun ak aji xam moom it du regg du doyal minal ilmi ci xam-xam yent duñu doyal ci yent bët mooy bu jëkk bi du doyal ci xool lu mu xool xool rekk du doyal ñaareel ba mooy suuf du doyal ci taw suuf si moom lu mu taw taw rekk mooy bëgg ndox ñetteel mooy jigéen xëy na lu am ci bànneexub sëy itam du ko doy ñeenteel mooy boroom xam-xam dëgg-dëgg du doyal mukk ci xam-xam lu xam rek gën xiif gën a bëgg xam-xam wa anhu jële nañ ci moom aydan ba tey arbahun yent yadhab na danañu dem bayaaxan mbiri muñ ak neen dayaaxan mooy ak sànq waaye mooy ak neen al aklu lekk ma a shibahi ànd ak ab reggaay wa siraaju ak làmp ba fil xamari ca leeru gu weer wa wa zarahu ak mbay ma fi sabxati ci ceeñ maanaam suuf su am xorom nga xam ni boo fa jiyee du sax wa sanihatu ak njekk ila xayri ahliha jëm ci kudul aji yelloom ja yent yi nee nañu du dara ba ci jëkk mooy regg ba noppi di lekk teg ca ndegam rekk lekk na ba regg lu mu lekkaat teg ca rek lor lay indi waaye amatul njariñ ñaareel ba mooy ab làmp dañ koy soxla ci lëndëm waaye bu fekkee ne weer yi fekk na mu leer ba aajowoo ab làmp jekki di taalub làmp yàq rek la kasara rekk la ñetteel ba mooy booy ji da ji ci foo xam ne am na yaakaar ne fu nangu mbay la dana sax te nangu waaye fekk ceeñ mooy béréb boo xam ne loo fa ji du sax mbaa bu saxee du baax nga di fa ji loolu ak yàq la kasara la ñeenteel mooy def njëkk lu baax la waaye nag defal ko ko yelloo ndax léeg-léeg nga defal njëkk koo xam ne yëloowu ko wëlbatiku rëcc ko lool lool xikmatul li beneen xikma la arbahun yent yi law suddat doonte takkee foon na ilayhi na jëme ci ñoom arrixaalu raxla ya lakaana kon mu nekk xalilan di aji néew fii xaq yaa ci seen àq laa yarju du yaakaar xabdun ab jaam illaa rabbahu ndare boroomam wala yaxaafu te du ragal illaa zambahu ndare bakkaaram wala yustaxyi te du rus aljaahilu aj réer ja an yataallama ci mu xamlu wala yastaxyi te du rus alxaalimu aji xam ja ida su ila ndeem laajeef na ko xammaa walis la nga xam ne laa ya'lamu du ko xam du rus an yaqoola ci mu wax ne laa adri déet may xam yent yi doy daa jafe ba nga xam ne foo ko dégg mu war laa jaral dem seeti ko ba xam danga ko mën a amam ndéet te ku ko yàlla baaxee itam saye boo sant te warees na laa seetsi ndax yàlla defal na la lu jafe-jafe bu jëkk ba mooy jaamu bi yàlla boo xam ne yaakaarul kenn kenn ku may yàlla loolu lu jafe-jafe la ku yàlla may yaakaaru kenn mbaa lenn ku may yàlla loolu dafa jafe lool ñaareel bi mooy jaamum yàlla boo xam ne ragalut lu may bàkkaaram kenn ku ne fu mu yàgg rek bàkkaaram moo ko fa tax a yàgg kon nag ku xam bàkkaar na mu gaafe ragal bàkkaar ba ragalul lu may moom loolu day lu jafe-jafe la ku ko yàlla mayit may la lu jafe-jafe ñetteel bi mooy koo xam ne xamut waaye rusuta laaj ak jàng loole mu xamut ba xam ko bari na ñu xamut te xamuñu ne xamuñu ba xam nañ ko waaye rus nañu laaj ba xam te ku xamut moom laaj rekk a ko war ñeenteel bi mooy ku xam koo xam ne wóor na ko ne kat yàlla rek xam lépp ku bokkut ak yàlla dangay ngay xam lenn umpale leneen loola tax nag buñ ko laajee loo xam ne xamu ko mu ne loolu daal xawma ko loolu kat taxu ko yombe noonu am na ñoo xam ne xëy na rus ñu laaj leen ñu ne xamuma ndax fekk siiw gën siiwee ne boroomi xam-xam lañu tax rekk daal rus nañu ñu laaj leen ñu ne xamuñu fekk na yàlla rek moo xam lépp lépp ku bokkut ak moom dangay xamle umpulele waqul liman yadda'i ilman wa ma'rifatan alimta shay'an wa ghabat anka ashyaa'u xikmatu li xikma la wa qaala waxoon na Xomar ibnu Abdil Aziz am nga wal xafu ak jégle ga indal qudrati fa kàttan ga muy fa mën ngaa fayu wal xilmu ak lewet ga xindal qadabi fa mer ma wa rifqu ak ñëwante bil xibaari ci jaami yàlla yi Omar ibn Abdul Xasiis yal ko yàlla dolli ngërëm ku baax la woon nee na li yàlla gën a bëgg mooy yent yii bu la mayee lu ëpp sa aajo lam ëppee nga dimbalee ko ña te yàlla tax muy benn ñaareel ba mooy soo jekkoo mën a fayu nga baale ngir yàlla bañ a fayu ñetteel ba mooy loo mer-mer nga far lewet rekk bañ a topp sa mer ndax léeg-léeg nga topp sa mer far jaare ca di rëcc rekk ndax topp nga topp sa mer ba def loo xam ne mer maa la ko yóbbee ñeenteel bi nag mooy ñëwante mboolem jaami yàlla yi ku yàlla sàkk ku ne rek nga ñëwante ko ba sax lu bokkut ak nit nit ki li yàlla sàkk tem amuru li nekk mënees na caa sàkku tuyaaba kon nag ñëwante jaami yàlla yi mooy ñeenteel bi xikmatul lii xikma la arbaxatun ñeent taxtaaju danañu aajowoo ilaa arbaxatin jëm ci yent alxasabu ngor muy tedduk cosaan lil adabi jëm ci teggiin was suruur ak mbégte dana aajowoo lil am ni jëm ci ak wóolu wal xaraabatu ak jegeñaale dana aajowoo lil mawaddati jëm ci cofeel wal xaqlu xel dana aajowoo li tajribati jëm ci nattu maanaam gëstu ak yàgg seet yent yi lu ci nekk am na ci lum aajowoo lu mënta ñàkk ci moom bi ci jëkk mooy bokk ci cosaan lu baax day aajowoo nga doole ca sàmm teggiin amee melawu baax waaye boo bokkee ci ñu baax rekk te amoo teggin amoo melawu baax ku la gis ne kii day bokkul ci ñu baax ñooñu nga gis na koo xam ne ñam bokk sax xamuñu leen waaye nam mel rek ku ko gis ci teggin yaag meloo daal koy boole ci ñu baax ñi moo tax sëñ bi waxoon ca njëlbeen nax ju xadaayil xaaj ne wa huwa allazi jaxala xusnal adabi yuxfi jahalatan wa qubha nasabi ñaareel bi mooy mbégte balaa sotti xel dal ku amul jàmm ak xel mu dal doo mën a doonte sax yay tax a ni ki alal ak lu koy nuru am nga ko waaye amoo xel mu dal amoo jàmm rekk mbégte du sotti ñetteel bi mooy ak jege ñaale balaa am njariñ ñoom ña siq jege ñaale ñu soppante boole ca waaye lu ñu jege jege bokk ndeeg bàyyi waaye cofeel ga amu ca rek du tax mu amee solo noona ñeenteel ba mooy nag xel lu ko waay rëylu rëyle ak lu mu ko rafet la rafet la day aajowoo muy jëfandikoo xel ma ko defee xel ma yokku waaye xel bu fekkee duñu ko jëfandikoo day mujj rek naax saay xel day aajowoo ñu wax nattu ak seet ak bari la gëstu ndax xel sax yaar la xel moo xam ne cosaan la yàllaa ko def ci nit ki ak xel moo xam nag moom des koy fàggu mooy kooku day jëfandikoo xelam nag ba am rafetuk gis-gis am rafetuk xàmmee xikmatu lii xikma la waxila waxees na ne arbaxatun ñeent laa taquumu du taxaw adduniya adduna illa biha ndara ci ñoom ilmul xulamaa yi moo di xam-xamub way xam ña wa xadlul umaraa yi ak maanduk buur ya wa ibaadatul budalaa ak jaamuk abdaal ya wa saxaawatul agniyaa ak tabek way riis ña way woomal ña yent mooy tax àdduna jag faw ay boroomi xam-xam yoo xam ne ñooy teeti nit ñi seen xam-xam mënuta ñàkk ñaareel ba faaw am ñoo xam ne ñu yore nguur ga te maandu di awale nit ñi ci aw yoon ñetteel ba faaw am ay jaami yàlla yu baax yu taxaw ci jaamu yàlla jéem a jox yàlla àqam ndax ndegam ñu ëpp ci nit ñi duñu mën a def loolu kon boog na am ñoo xam ne ñooy féetewoo loola bi ko ñeenteel nag mooy na am ñu barile te tabe boole ci mooy faaw balaa àddunaa jag am ñu am alal te nangu ko joxe ngir yàlla xikmatul lii xikma la waqila waxees na ne arbaatun yent yi laa yustaqallu deful xeeb qaliluha aji néew seen ad daynu mooy bor wan naaru ak sawara wal adaawat akuk noonoo wal maradu ak tawat nee nañu yent yi lu ci dara tuuti tuuti mu tudda xeeb ba ci jëkk mooy bor bor bul ci xeeb dara ñaaral bi mooy sawara sawara lu mu tuuti tuuti mën naa taal am réew ñetteel bi mooy noonoo noonoo lu mu tuuti tuuti man naa yàqal nit ñi ba seenu dund du neexati ak tawat tawat lu mu tuuti tuuti mën naa yokku yokku ba jaaxal boroom xikmatun li xikma la wa qaala abu bakrin alxuwaarismi arbaxatun yéent yi tubb ni danañu songungloo danañu dàccloo rasulun te mooy ndaw bati un aji yeex wa siraajun akub làmp laa yurdi u bopp du leeral wa qalamun ak qalima laa yajri goog du nangoo daw wante zaaru man ak nekkaliku koo xam ne laa laayu ji udu dikk abubakar nee na yeent yi lu ci nekk man naa tax àdduna soof la bu jëkk bi mooy di ndaw demul dikkut loolu man naa tax àdduna soof la ak làmp boo xam ne takkut bàyyiwut xalima goo xam ne da nga ciy jëwu bind te mën laa fexe ba mu baax li ngay bind mënoo koo ñàkk bind te xalima gi nangu wuta daw wala mën naa tax àdduna soof la ñeenteel bi mooy di xaar koo xam ne xaar ngaa xaar bu sonn te ñëwut te xamatoo ba xam dina ñëwam du ñëw yent yi lu ci nekk mën naa tax nit àdduna soof ko waxtu wam tollu naqari ci moom baat boobu nag di todd ni dana songoŋ loo ak dana songoŋ bu ko laf waxee da ci jublu yaram wuy jeex rekk kookay niisaan te gisuñu jëmmi tawat ja nga xam ne moo ko dal loolu mooy cosaan ci baatub ab dona bi ñuy firee songoom wa qaala bnu xabbaasin radiallahu anhu arbaxatun ñeent ñile laa aqdiru duma àttan xalaa mukaafaatihim ci fayanteeg ñoom rajulun moo waay bada jot jëkki na ma bisalaami ci nuyu wa rajulun ak waay wassaxa ku yaatal na lii ñeel ma fii majlisin ci ab jataay wa rajulun ak waay ixbarat jot fundooñ na maanaam fagg na xaddamaahu yaari ndëggoom ya fii xaajati ci sama soxla wa ama raabihu ndaal aji ñeenteel ja falaa yukaafi uhu du ko mën a fay illallahu ndara yàlla xii la waxees ko ne ko man huwa anakuy moom xaala ne rajulun waay la nasala juñ wàcc na bisi ci moom amrun mbir fa baat te mu fanaan mu tafakkiran di aj xalaat laylatahu diirub guddeem nga man ana kan yónn si luxoo ko wàccee bi ci moom tumara a ñu topp mu gis ma ahlan may aji yelloo li xaajatihi ñeel aajum joojee fa ansalaha te mu wàcce ko biyee ci man ibnu xabbaas yal na ko yàlla doolee gërëm nee na woon ñeent ñi moom mënuma leen a fay yàlla leen mën a fay ku jëkk ki mooy kama gis fexe ba jëkk ma nuyu loolu ak fonkeel la ñaareel ba mooy ki nga xam ne ñëw rek mu daldi ma yaatal ma toog ñetteel ba mooy ku xam sama soxla mu jaral ko jóg di dox di ma ca dimbale bëgg mu faju ñeenteel bi nag